naa bu bëggee ci làmb barke yow mbal xiyaam la ko baax ku yëg da ngay ñàkk. général combat mel mu ngi a bëre barke yow xam nga loolu chiffre combat général yëpp combat bi mu bëre mu ngi koy soog a bëre combat yi mu bëre mu ngi soog a bëre làmb ji mel nii. xanaa daa am lu mu doon sóor ci yow. ah moo xëy na moom moo xam ñu ko indi man moom wax dëgg fa yàlla naa indi laa indi ñëw naa gérer sama combat entraîné naa ko dama ko war a entraîné ànd ak sama sama xarit noonu waaw. Ah. ñu bëri dañ doon wax ne mbër mu a xeex la général. ah keroog defee feeñul le puusul paasul. billahi puusul paasul de. ay ndaamal daaru laa ko dóor ba mu tartari. billahi. Alioune Seye bu waalo. laa bëgg mu ñëw ñu bëree. daan na sa mag Issa Pouye de. moo tax dama ko war a duma. duma yu metti dafa war a ñam ci dama Alioune Seye 2 yow. pour Alioune Seye naa ko dama leen amee revanche ñoom. waa Géej waay. maa ngi si ñaari revanche. kan ak fa daan. maa ngi ci sekk. arbitre bi dañ ne mo sel moo ko dem sama yoon. Youssou Ndour dama ko dóor ba mu nekk ni ma daan ko. Youssou Ndour maa bi ko Diène Kaïré daane maa ko njëkk a daan Babacar moo la benn affaire man 19 combats la am. victoire. 15 yow teg nga ko ca yoon de. ñi ni wax ruwaasa amuñu loolu. non war a fi ma nekk dafa jot. waaw daal géej waay fi mu nekk nii moom da nga bëgg daal euh, sa waay fippu Alioune Seye 2. Alioune Seye 2 dañoo ñu bëree ma defaral ko am na combat mook mook ñax mu échec waa géej waay ñëw yàq làmb ñu néewal doole ñax. parce que waa géej waaye ko yàq. dëgg la waa géej waaye ñoo yàq làmb ñoo ñëw néewal. ko yàqee nañ ñëw ñu bëre man ak ñoom Alioune Seye de dañoo ñu bëre ma defaral ko. est-ce que géej waaye ñeexu ñebe lañ. waaw man de sama ñeexu ñebe lañ. yow Aliou ndax 2-0 la man ak ñoom. da ngaa bëgg yokk deux. dama koy yokk dama koy yokk yokkaat ko. yaa ngi Youssou Ndour mënu a revanche. dëgg man damay paa bay joxe revanche. revanche dañ dem laaj ko bu ndaw laa revanche kan laa li may wër amagu ma ay ñoom Balla Gaye amoo ñoom Modou loolu laay wër seen ay ñaari gàll ñett ñeent ay oto ay parking lu ko raw loolu laay wër ba pare soo ko may revanche. yaa tudd léegi Balla Gaye Modou Lo mu mel ni yéen jëm ci komba ak Papa Sow combat boobu le premier août Siteu defe naa ne bari ngeen lu ngeen di ànd liggéey ci làmb Siteu mi ngeen gis nii est-ce que ci côté doole physiquement am na lu mën a daan Papa Sow euh, le le le premier août. Siteu ba combat ba léegi ba amul lu daan Papa Sow mu dem toog. ndax boobu ba léegi mu ngi entraîné ñoo ànd Gambie ñoo ànd John War ñooy ànd la Rose fépp daal maanaam ñoo ànd ñu ànd defandoo lépp kon sama combat paase war na leen a yee ci Siteu waaw ndax combat bi ñoo ko contact ñoo ko def lépp ñoo ko physique lépp ñoo ko defandoo kon lii war na leen a mën a yee ci moom Papa Sow bâtiment bu sol ndox la mu ngi wax Siteu na ay Siteu di ko jéem a kaaj nan ko ay sa tànk dafa mbaq li muy xëñ ko te ñi muy àndal koy nax muy àndal mënuñoo nax moom kaañ la. ñan lay àndal ñu koy nax. waa parcelle yi i ak i rakkam. déggoo si tamit ay xaritam Modou Lo lay àndal. déggoo si ñun lay àndal. ñoom Franc waaw saw na ànd ak alelo. garga de na Franc moo gën a niil ci mbëri. Franc nu mu niile. Franc moo gën a niil ci mbëri yow xam nga la moo gën a niil ci mbëri. mais Franc yow di daan daanoo gul nga ne moo gën a niil. xam nga la a daan 13 1. kan moo ko mais est-ce que Reug Reug daan ko 13-1 jàpp na tata est-ce que sa na la ñëw 13-1 ko daan. yëpp sama kanam. 13 la ko Reug Reug la ko daan Cheikh Diouf ma ngi ne boobu rek dem laaj ko. mais boo nee Franc dafa niil tamit ku la dégg est-ce que dina ci ànd ak yow. Franc tapel la waxu ko contre. waxuma li am laay wax. benn nit jàppale da daan 13-1 mënul kooku mënul weesu niil. Franc bëre gu fekk moroomam moom na tal boppam muy sëy bàyyi la mag nag bu màgget nag jigéen jur ba sonn mënatuñ dara mooy Papa saw bagara la du dara nagu bagara la. li fay le premier bés la de mbaa yaa ngi sóor li ngay wax ni kuy maye doom ak ku mayegul ku amagul doom bokkuñu kuy maye doom ak ku amagul doom joo maye bokkuñu mënuñoo yem. loolu moom waxuñ Papa Sow mos am doom ak yooyu waxuñu sportif la daal buy entraîné te gis nañ ko démb muy liggéey lu metti dégg Papa Sow champion la jàmbaar la mais lamb ji ñaar ñu ko si lebuñu ko saratuwuñ ko. liñ moom si moom la ñuy ñëw pour jël si ñooñu mi àndal ñuy neew neewloo ponkal ponkal nan yam. ñan lay ñan lay ñan lay àndal ñu neew. ay franc ay góor a sawak ay garga dëkk ñooñu ñëpp nan yam ak kan ku ci desaat ah, ay daam seen ay kan ay mollo ñooñu ñëpp nañ lem seen genn toog si. Modou Modou Modou moom du ñeexu ñebe. dégg nga ñooñu ñëpp nañ yam. Modou du ñeexu ñebe man man ma ko woo dara ndax Cheikh Ba moom dara. Ah, Modou moom ku ko dee. kooku daa wex xàtt nag. Modou daa wex day gën a de. foo mënoo ma faa wax loolu lu ma fa waxul. non wax loowu ma la fa dara mais moo doo wex moom dégg naa ko wextanam. moo loo loo dégg naa la xaat fi mu toll nii. moom am na lu ko doy na dem lijjanti moom Ama. si ta Papa Sow la ñuy wax moo loo Ama na dem lijjanti loolu. déglu mu am si gàmm bu mu dugg il faut mu wax si parce que démb rek seetaan naa benn interview boo xam ne ñoom Thiatou Fora ñoom Abou Niassé gars yi seen xol rek lañ topp di wax. maa ngi déglu commentaire yi ñu naan yéen lan ngeen bëgg xamoo leen seen bopp Modou Lo dina bàyyi papa Modou Lo du bàyyi Papa Sow ñëw di faral Siteu loolu mënul ne mais Babacar am na lu ñu jot a dund loo xamante ne ak Modou loo ah non mi ngi te day rafet ba léegi am na foofu ñoo xam ne du ma du ma tudd tur mais am na ñoo xam ne te ba tey ñoo ngi sàmm li ñu war a sàmm te pourtant no nañ dem jiitu taxaw si kanamu Papa Sow mais daa lu ñu sàmm xamal tax Siteu daa lu Papa Sow amul si làmb Siteu a gën a seet kese Papa Sow Papa Sow bi muy bëre nii lañ toll di ko seetaan Siteu fan si Papa Sow la woon. waxoo ko far yow boo moo moo gën a seet Papa Sow waaw mais non xa Babacar xaara xaara xam kay. non non Babacar ñu waxtaan. yaa ngi dégg gileem ku ko yónni gileem ku ko yónni gànnaar da koo ñibbiloo yow xam nga ne Siteu moo papa bokkul si làmb si wàllu kase papa champion bu mag a mag la lim dafagum si làmb sax si daf dafagu ko yaa ngi dégg mais maanaam man mi ngi noonu man mënu ma la wax lépp Modou Lo xaara man ànd ak Siteu fi émission ak Lamine Père Bourkhane di wax si Siteu di wax si Modou Siteu taxaw tontu ko am na mu ak moom te Siteu pourtant lépp lu Modou Lo am si lamb Siteu am na ko mais dafa fàtte boppam fàtte lépp xam ne mbokk la Kader moom moo taq raqu Modou Lo Kader suñu mag la suñu xarit la keroog ba Siteu di ba Modou Lo di bëreeg Balla Gaye ñu bëree ngi taxaw naan ñaw di kontaan ndax Siteu dafa dem dëggal boppam taxaw na te bu ko neexoon jàmm gën lay toog jàmm gën ak parcelle sore na mais yàlla mooy boole ay nit mais Modou Lo dama ko seetaan ba Papa Sow di daf ber écurie boobu waxaguñ sax ji loolu daaw la ci corona ñëpp jël fa parole Papa Sow ci jëmmi boppam ñaanul ndam si lambam daa wax lu rafet daa wax si affaire kë Ikrim ni muy demee staff bi ñëw wax ni Ikrim bi war a demee mais Modou Lo dafa ñëw jël parole lamb amu fa signature ñu waxuñu waxu lamb ak Siteu mu ñaanal Papa Sow léegi bañu ma ñaanal bi xam nga la laa bañ ni mu ni mu boycotté Siteu mel ni xamul ki Papa Sow di bëreel xam nga man la laa bëggoon Papa Sow na ko yàlla may ndam suñu mag la ñoo bokk parcelle te lu gën a jege gën a yey mais Siteu suñu raq la te yàgg na ma dajal coono daj na si man coono yu ne mais nag lamb moo demee nii mais képp ku muy bëreel ku dul parcelle ñu moom la ñuy faral ndax am na fu mu taxawee si man ba ma xam ko te bu ko neexoon wax ju rafet Babacar dafa baax. mais mu ko dégg ba combat bi taxaw bi tey mu wax mais et tam sportivement. man li ma lay wax ma dégg. mais ba ñuy mot ba kay maa nga fa. oh man du ma cuune man man man. bokk foon jili waaw xaaral. xaaral xaaral xaaral xaaral am na loo xam ne sax dama bëgg a leeral moo tax ma wax si yaa ngi dégg. si xaaral doom day dama bëgg a leeral daa may leeral xam nga li may leeral mooy lan bëgguma nit ñi defe ne gars yi wax Modou Lo dafa war a ñëw faral Papa Sow loolu laay wax rek Modou du ñëw faral papa du ñëw faral Siteu bokk Papa Sow lay faral Papa Sow lay faral yaa ngi dégg Siteu sax pourtant dof dof weesuwul Modou Lo ñëw ba fii di ànd ak Siteu si ay open press ak mais man xam nga fan laay wax même bu dee day ñaanal Papa saw laa la wax dafa am lu ko Siteu dund wala déggoo ma Babacar. dégg naa la kay wax de. maa ngi dégg di déggu may tubaab sax man. voilà wolof laa dégg. Babacar bu ma rey Babacar. Serigne Saliou Modou Lo mënoon na ne Papa Sow yàlla na ko yàlla may ndam daan ne ndax xamal tax Babacar ñun dafa am lu ñuy taxawee làmb Modou Lo de ñun Modou Lo dafa am lu ñuy taxawee si làmbam mais est-ce que tey est-ce que tey buñ ko tegee si xol ñun dinañ sañ loolu parce que ku nekk sa bis nga am bara bara eh jili non Modou Lo man dinaa la dinaa la dinaa la dagg parce que nag dama lay daj waa d'accord waaw copain copain may ñu dama la warul métti de waaw oh mais Babacar yaa ngi may suru xel nag de. non mënu bos ah dama laa mën a suru xel yow mii rek ak li ngay tëgg mi. mais wuy ma noo taxawal Babacar. non mais xamal mooy maanaam pour mais man du ma cuune la wala déggoo li ma la wax boobu ba léegi. kay dégg nga ne man na. caat booy bambara. xam nga Papa Sow ak Modou boo bokkuñ dara caat booy bambara ak Siteu dañoo bokk deret boo gisee caat rek sax gis nga Siteu ah, keroog ba muy nu mu tudd suñu mbër bi feu fii ñoo daje Gambie signature ya Siteu di signature ak Zos bi mu jëlee micro bi waxtu ak Zos ñoom ñaar la waxal seen lamb ji yéen ñaar la jënti leen ko man sama yoon nekku si sama combat bi laa tal est-ce ma dafa am nit looy dund xamal tax Siteu waxee noonu pourtant caat bu nekkoon nit la day bàyyi Siteu mais feu rouge suñu dëkkandoo la te Modou Lo sax ku ñu waxee noonu nañ ñaanal Papa Sow mais lan moo tax Siteu tontu yim ko baal ma dugg samay connexion ma waxal la Siteu fu mu sololee mbubu avocat Modou Lo ba doyel lan moo tax mu mën a taxaw ñëw fàtte loolu dèjà fi mu ñaan ñaanul instant bi mais daaw laa la wax ba mu Papa Sow di ber écurie am moo fa jël parole wax ba Papa ñoo ngi koy ñaanal si combat bi yàlla may ko ndam aka ma see kontaan mais dafa waroon a tourné waat wax ju rafet laale leex tourné waat daan ne Siteu nag daj na si man lu ne te mënoon na ko si bañ a fekk ndax lu ma am si làmb am na ko Babacar Siteu tardé wul si làmb de am na lépp macha allah tabax na kër gu rafet moo ngi ci mu war a nekk te yi ñuy wax ni nii ni nii nii nii amul bataille psychologique daanuñu ñun jàmmagal lañ dëkk dèjà kàllaama rek si ñun la fekk baax mais bataille psychologique yow nga ñëw indi woo tëggkat ki indi tëggkat bàqu 30 minutes taxaw di jàkkaaroo wax xeexatul dafa dara yow nga toog ne sa podium bu mool toog bañ woo la nga ñëw ci tribune naan koy gis naa la nga fecc yow lan moo Papa Sow mënuñu nekk ay xale yu ndaw faral ko ñun xoolal ñëpp lañ jox cër Babacar mais kaa ma xamal la bu dara desul lu dul ñun bëre wuñu ñun ñun dañuy bëre nekkuñu di football. Babacar yàlla na jaamu yàgg yàlla na jaamu yàgg. mel ni ku si nawetaan. xam kontaan naa ci. waaw da nga waaw dama am combat le 29 août incha allah maag rawaan bu parcelle. waaw. yéen seen digganteeg parcelle ren moom aller retour yi métti na di. xaaju musiba musiba àncee ko gën. te gis naa leen ñu <laughs> di liggéey nga nopp sa jabar. rouge noir. waaw mais ku mu neex yow yaa ngi sol sa rouge. yow noir nii yow. ma entraînement la. gis naa leen ñoom itam moom lañ so. waaye ñu ko otes su noonu mel ni ay nu ñuy niróol noonu. nañ ñu ngi xam ba pare soof ak seen élastique seen liggéey yooy ñoom la concerné billaay loolu ñoom la concerné seen affaire yooyu noonu ñuy def noonu coalition genre affaire yooyu noonu ah. ñun bañ ñun ci lañ dëkk coalition ñun ci lañ judd waaw ñun ci lañ judd daal maanaam le premier août daal xam a coa coalition ñoom dañ siy doog a jot ñun si lañ judd ñun si lañ judd ñun ba léegi ñoo ñoo màggandoo ba ñuy toll nii ba tey nii lañ nii lañ nekkee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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal